कृष्णाजी सरिंगाई गई वाई वही कृष्णाजी सरिंगा दी गई वो अलग जाम से तो गई बंदा लगा सो बैंगलोर वाकर सरिंगा दे गई इन्होंने मंजूर दल سيدي ولي قاد ربي سول ما صحة الجسم Program bi niñ ko tënkee insha allah rabbi non lañ ko fassene yéenee wéyale dana ñu jox kaddu gi ci niñ ko tënkee sëñ Xaadim Touré kennal sëñ Touba mu dalal gan ñi waye dañoo wax ni sëriñ mamour mbacké da fé téwal Cheikh mamadou muntaka te yitté yi xat lool ñu bëggoon ñu jox ko kaddu gi bu ko défé mu ñaanal mbolo mi ñu tambali mo meuna yewé ko bu noppé nak ñu jox sëñ Khadim Touré kenn la sëriñ Touba mu ubbi dalal gan ñi bu kaddom noppé wax nañu da danañu teunk li dess ci programme bi inshallah kon bismillah sëriñ Mamour nuyu wa bass bép di jital ci nuyoo bi ak ziar bi diko tek ci loxoy sëriñ Mamour Touré sëriñ Mamour bis bi mu nek ay bis yo xamné ay bis yu fasantikoo ci biir dëkk bi ñu am ci ndigal ci ñaari bis yoo xam ne war nañ fa teew muy sa bis bi ak bisu sëriñ Mouhamadou Dieng fële ca Ndam euh, te sëriñ bi moom kenn ku ne xam ne ay mbiram boo ko waxee dara da nga koy déglu ngir teewlu ko mu wax la ni nga ko bëggee mu bu jullee timis na ñëw jaaral ma ci sëriñ Mamor Touré. boo fa jógee soog a dem ndaam ci kër sa Modou Dieng ndax li waral loolu moo di lépp sa taxawaay képp la sa yitte ak pas-pas bi nga am ci liggéey sañ Touba ndax bis bii bi nga ko waajee da ko danga ñëw ba ci moom xamal ne ko ne wax ko ne maanaam doo ko yëkkati lu dul ci ak ndigalam nga wax ko it li sabab bis bi ay li ko waral ak yéene ji nga ci am ci màggal yi nga xam da nga koy màggal seexe sëñ Tuubaa yi mu ne la loolu de rëy na lool waaye na nga xam ne defoo ko sama jëmm ji nga koy defal kon maa ngi la ciy ñaanal ngattanuk sëriñ bi ak omatug sëriñ bi moolu dutuwaa dalal si ne ma wax wax ko ne maa ngi koy ñaanal suñu borom dimbali moom daje ceeg tawfeex sëñ Tuubaa ndax dafa nekk liggéey boo xam ne liggéey bu rëy ndax ñi nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bi doon ko liggéeyal ba am ngërëmal sëñ Tuubaa ñooñu kenn amul seen fay kon ñi sëriñ bi mi ngi lay sant di la gërëm di ñaan ci bass bi képp ku fi teew yalla suñu borom fajj sa aajo ndax amoon na bis bi and ko ak yene bam xat bam jeex tak waye kenn ku ne xamna xata di jamono ji ak ndigal li nga xamne ci lañ nek waye na ngeen xamne suñu xel ak suñu xol yépp mi ngi ci biir liggéey bi waye sëriñ bi de dal nga xelam waye nga yaakaaram kon mi ngi ñaanal ñepp suñu borom dimbali ñu ba dajeeg tawfeex sëñ Tuubaa ngeen jëf alaykum wa rahmatullahi di leen nuyu nuyu ak islam bu sell bu tedd boobu nga xam ne lamboo na mbooloom xeetu yiw bu ñu sàpp àdduna ak àllaaxira waaye di ci jiital ak ñaan jëme ko ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom dëddu ko kàttan te may ko wér ba li mu bëgg a liggéey Cheikhul Khadim lépp mu defe ko noonu ko soobee te àndoo ko ak mboolem buntu këri Seexul Xadim yépp di ko ñaanal sëriñ Ibrahima Touré mi nga xam ne moo toog ci bopp njabootu sëriñ Aliou Touré Barikalla ak mboolem buntu këri Seex Seexul Touré Barikalla yépp di yëkkati ay kàddu yu gàtt muy kàddu yu dalal waaye bàyyi boo ci sëriñ Ibrahima Touré mi nga xam ne mooy kilifa kër sëriñ Aliou Touré Barikalla waaye jaar ci kilifa kër gi nag di sëñ Bachir Touré xalifa Serigne Dame Abdourahmane moom Cheikh Aliou Touré waaye jaar ci jëwriñi kër gi El Hadji Serigne xalifa sëñ Chouaïbou Touré ñëw ci sëñ Mamor mi nga xam moo woote bis bi ba tax ñëpp daje di jiital nag ci dalal gi Serigne Modou Abdoulahi Mbacké moom Serigne Cheikh Ousseyn Fall mi nga xam ni mooy borom jotaay bi te yàlla dogal ak mu ne dana bàyyi itteem yépp ak li muy xat-xat ñëw ngir jëmmi sëñ Mamor lim doon ci moom ak li sëñ Mamor doon ci moom te ku xam sëñ Modou Abdoulaye xam ne jotam bëriwul. daje moom ci ay bisit bëriwul lu muy am ndax dafa nekk rek ca la sëñ Tuubaa nekkoon sëñ Bachir maamam nekkoon ca sëñ Cheikh Sufaan mi wéy juróom nekkoon ca loola loola moo ko xam jot ba daje moom ci lu mel nii jafe la kon ñëw ñëw gi mu ñëw fii lu rëy lu kawe loo xam ne mboolem njaboot suñu Aliou Touré Bally Kane la gépp ci bëgg yépp suñu xol set na ci ñoom day ñaanal mbàkke suñu borom guddeel fan wi te wéeral cër yi ba li nga bëgg a liggéeyal yëpp muy say rakk ak taalibe yëpp ak say doom noonu it dalale délégation yi nga xam ne teew nañu fi yëpp ndax bu sëñ Maam Mor wootee bis di màggal seexi sëñ Tuubaa yi buntu kër bu ne am ñu fa bàyyi koo ñëw sant ñëpp dana jafe waaye boo nee ñëpp bàyyiwoo kenn boo nee fépp bàyyiwoo fenn waaye nag tàgge boo gis ñàkk jàppal diw ndax wal mburu tuddub dëkk ndax mburu ci dëkk lañ koy dëkk kon ñi nga xam dañu leen tudd ci bis bi rek bu ñu leen tuddee dalal leen ñëpp tàbbi nañ ci biir loolu ndax bis bi ku ñu tudd sab cëri nga ci ku ñu tuddul sab cëri nga ci daal seebut rek ndax sëñ Maam Moor Cheikh yi ci biir kon moo ngi dalal bu baax njabootu Sëriñ Manaaw ci kër gi ñu tàbbi bokk ci buntu kër yi Seexul Xadiim yi te mbooleem fu ndax nekk mbooloo sukk fa la ñuy xéwloo si la jabootam gii ak teewaay bu am solo rafet bi ñu teew cant gi ak dalal gi bàyyi ko ci Ibrahima Touré mii xalifa suñu am cër bari ak ci jëwriñ kër gi ngeen dalal bu baax di am mbégte bu baax ci teewaay bu rafet bi ñu teew ak yëg gi ñu yëg bis bi ak xam gi ñu xam ni ñoom ñoo ko moom di dalal bu baax it njabootu sëriñ Mabé Guèye jaar jaarale ko ci sëriñ Mbacke Guèye mi nga xam ni moo toog a jotaayu sëriñ Mabeye Guèye waaye njabootam gi nga xam ni ñoom ñëpp ànd nañu ñëw teew ngir xam ni sëriñ Mabeye ci seex yi la bokk ci mag ñi la bokk ñu def délégation bu rëy bu am solo yëg bis bi lool fonk ko it lool kon ñoom it ñoo ngi am mbégte di leen dara jàmm. te di leen ñaanal ci barke Seexul Xadim lañ bëggee liggéeyal Seexul Xadim jaarale ko Cheikh Abdou Moustapha loolu dafa dem ci ba kaw seen jot dégg nañu lool. noonu yi dañ dalalee général sëñ Omar Seck alal imaam Cheikh Ibrahima Fall ci taxawaayam ak ci pas-pasam ci digganteem ak sëñ Maam Mor waaye digganteem ak képp ku yëngu ci ak taalibe général neex nga ko ñor nga ko taxawaay yi nga xam ne am nga ci bis bi yëpp it. lu njaboot gépp yëg la te kilifa yi sant nañu gërëm nañu la yëpp ñu ngi daal yàgg mbooloo ñu ànd yëpp nag ndax mel na ni tey jii buntu kër maam Cheikh Fall yi kenn gisul ndax da doon ci kër xalifa bi xam nañu ko kon foo teew njaboot yëpp teew na di dalal bu baax it njabootu sëriñ Masamba Touré mi nga xam ne mooy caatum sëriñ Aliou Touré la sëñ Mor boole ko ci ñi ñuy fàttaliku ci bis bi te sëñ Mamadou Bassir mi nga xam ne xalifa sëriñ Massamba ànd ak njabootam gi yëpp ñëw teew teewaay bu rafet bu am solo te ñoom bu ñu ci tuddul woon sunu maam du tedd jooju bis bi seen bis la rawatina bi ñu ko tuddee nag ñu fonk ko lool kon ñoom ñu ngi leen dalal baax a baax di fàttali ni sëñ boole ñi muy fàttaliku sëñ ma nga xam ne doomi sëñ Basiiru la te ak njabootam ñu ko waxee léegi sëñ Moodu Abdoulaye ñëw teew teewal fi ñëpp bokk na ci njabootu sëriñ Saliou Touré Thiès waaye di dalal baax it nag kilifa bu baax di sëñ Siir mi nga xam ne moom it taxawaayam ci yoonu murit yaakaar naa ni ñëpp xam nañu ko mu fonk buntu kër bii lool def ko ni buntu kër ba mu ne yëngoom yépp mu jëmee ko ca la Sëñ Tuubaa e, dëloon maamam loolu ca nekk mu jàng ak jàngale defaru ak defale kon seen ci yàlla yàlla gën laa sàmm aar la ba nga bëgg a liggéey sa maam buntu kër ba Sëñ Tuubaa defal ci la kawe sa njort noo ngi daal dalal mbooleem buntu kër yi seex si fi teew yépp yépp yépp kun tudd na kun xam ne rek sëñ Tuubaa mi tax seex yi li ñu doon ba bañ leen moom gis na ñëpp mooy dafay tey am nañu yaakaar te dina fay ñëpp moo xam ab taalibe moo xam koo doon rek ñoo lay dalal jàmm di ñaan jotaay bi daje teg tawfeexi sëñ Tuubaa billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asafil mursalin mbokki jullit yi teew mbokki taalibe yi seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe moo leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di ñaan ci yàlla suñu yaakaar tey ak ëllëg di suñu xalifa bu tedd bii di sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru yàlla na ko fi yàlla yàggal ca may ko wér moo njabootuk Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul gépp ah, tey jii ñu am mbégte ak kontante ci teew ci bisu sëriñ Mamor Touré bii ñu gën a tee bég ci njaboot gu tedd gu sel gi nga xam ne ñooy suñuy sëriñ te tey ñu teew fi muy sëriñ Muudu Ablaay Mbàkke ak sëriñ Basiiru Mbàkke Mbul ak seen rakk yi ñu àndal yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare te di leen jéggulu ci toogaay bi ñu xam ne ni jataay bi demee rek la waaye ñu ngi leen koy jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ah sëñ Mamor bég nañu ci bis bii cër bu bii nga xam ni jox nga ñu ko ci ca yàlla waral ko ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak ak bokk muy suñu maam ya nga xam te ni ñoo daje woon ci Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu sool comme ni ko Seexuna waxe léegi boo ñu ci joxutoon benn cërit bis bi kenn waruñu cee jiitu kon maa ngi nuyu njabootu sëñ Mañaaw Silla gi nga xam ne ñoo fi nekk yépp di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay di nuyu njabootu waa Ngéyeen ji fi nekk yépp muy sëñ Moustapha Guèye ak délégation bi ñu àndal ndax man sama néeg ndey ci waa Ngéyeen la bokk ndax Cheikh Mababou Guèye moo jur Oumy Guèye mu jur sama yaay di nuyu suñu mbokki Baay Faal yi fi teew yëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi fi teew ca doon doomi seex wala ngay kilifa maa ngi lay nuyu di feddali sama kóllëre ak sama jàpp di nuyu Serigne Nis sama xarit la di nuyu Serigne Jili jaañ ak waa presse bi yëpp ak communicateurs yi nga xam ne nag samay nit lañ doon samay soppe doon samay xarit te yàlla yonte beeg sëñ Tubaa tax ah sëñ Mamor bis bi bëgg nañ ci ndax sama teewaay fii tey mbégte la ndax sëñ Moudou Ablaye ñoom ñii ñooy suñuy sëriñ ndax ni seexu naa wax suñu maam mbokkum sëñ Touba la waaye nag bu fekkoon dafa doxaloon mbokk ga rek di dimutoon ci sëñ Touba kon tey lii am ni du am lii kenn mënu ko kudd seexu na amut Bamba Xaadimu Rasuul bu fekkoon ni saya soxna bu soog Amadou soxna bu soog ñoo bokk ndey ak baay sayar meññi faajamo mu meññi mudu faajamo mu meññi sëñ dëkk mu meññi ñu ahmadou meññi maam asawaalo mu meññi maam jaara bu fekkoon dafa yemonte loola rek demul jox boppam sëñ Touba liñ am nii tey duñ ko man waaye nag ndokk nag ba ñu yàlla dimbalee ba sëñ Touba wootee mu teel a moom bokku ca ña njëkk a doon juróom-ñetti ñu jébelu sëñ Touba dama leen koy wax ni leen bu leen wax sëñ bi sëñ bi ëpp na nañ xool mag ñi nga xam ne ñoo toppoon sëñ bi ñii ñëpp kenn ku ci nekk seen maam borom jamono la woon kenn ku ci nekk ci ñoom nii seen maam xut bu samaan la woon sëñ la kenn xamul lu mu doon ca kenn ku ne ba nga ñëwee dalaa won ni la duma sa morom li nga am baax na waaye am naa lu ko gën lii sëñ Tuubaa ko man nga toog ci kaw ñu toog ci suuf koo woo mu bàyyi santu ndeyam ak sant bàyyi wuyoo saw sant koo yónni mu dem jël alal bëgg la ko jox muñ laa gis di rang di la jox boole ko ay jooy loolu kenn mënu ko ku seex na Bamba Xaadimu Rasuul ñun ñii toog fii ñépp bu fekkoon ni suñ maam demutoon ci sëñ tubaa teraanga ji ñu am duñ ko am kon nañu kenn sëñ tubaa ca xam ne lépp moom la ca xam ni sëriñ tubaa mooy lépp kon jërëjëf sëñ tubaa seex na amul bamba xaadimu rasuul man de dama koy sant bu baax ndax man lu ma bëgg am ko kër gaa ngi ne oto yaa ngay gaare kër yaa ngi nii lépp a ngi nii wuti ma fen dara ca loola moom sëñ tubaa ci sama maam sëñ Mudu Faajama la ko defoon ca ba mu koy def ci sëñ bindul téere ba mu koy def sëñ Mudu jox ko jëlu sunguf jox ko joxu koy reen tàllal la say loxo mu tàll mu ni ko Amadou Fadio mu ni ko Mbàkke mu ni ko yàlla gërëm na la yonte bi gërëm na la man Sëñ Tuubaa gërëm na la tëf nga dem seex loolu kenn mënu kudu seex na Amadou Bamba Xaadimu Rasuul amdan wa sukuran li seyxinaa wa wasilatina wa kulliyatina huna waxana barke borom Tuubaa mi dog suñ digganteeg jëng yi ak jahannama wa ahmadu wa ala babihi wa babina fihi xudwatina maam cheikh ibrahima fall lamp babul muridina wa tarda an babil muridina maha cheikh ibra fall manil masaya jamaa bàjju bi téeñu téeñ ba yanu yan ba mel njamal ba wuññu mbooti bamba ñoo ngi feddale sunu jaayante ak sunu ngëm di ko sof ca pas-pasum murid bu mag ba moy pas-pas bu reuy bam jaayen ca ca mbacca Kajoor ba serigne bi nangul ko ko ñoo baax suñu sunu kilifa yu tedd yi nga xam ñom lañu fekk ci di ti jital serigne Modou Abdoulahi mbacke ñaan sa borom yagal ko waye noné lañu jël siyaar bi yépp di ko jaarale fi mom mu yegg ci mbooleem kilifa yi nekk ci bir bas bas bi yépp waaye di siyaare bu baax a baax Serigne Mor Touré mi nga xam ne moo woote bis bu tedd bi du bisub seex yi borom Touba yi waaye it cër bi nga xam ne it féetale na ko waa alali maam Cheikh ma Fall muy loo xam ne damay wax ne seen kóllëre yaatu na li lépp rafetal képp la te waa alali Cheikh Ibra Fall day képp ku leen jox ab cër ca dara xamal ne Cheikh Ibra Fall nga ko jox kon moom dafay teewal tamit waa kër Cheikh Ibra Fall di saare baax sëriñ Fall sëriñ Modou Fall jëwrinu di njiitul jës Jësbul Murit mooy sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi gis nañ ko fi léegi ñu ngi koy saare baax di gën a feddalewaat sunu kóllëre ak sunu jàpp ci sëriñ Mor ne ko señu ma sek waxe moy lo xamne day wax deug yalla señu war day kep ko ko xam mom mi xamne Cheikh Ibra rek ko ñor fuñ ne Cheikh Ibra Fall liggeel Cheikh Ibra dang ko fa gis Cheikh Ibra Fall nak dana wa dom ab taalibe kay day yor jikkoy naaru góor daañu dom naaru goor kat xàmmee wut borom ak kañ ko al ku yek tok na nga wara toge mu yóbbu fa nga wara jëm. kon sëñ moor mais jàpp gim jàpp sëñ Omar mii moo tax mu ànd kuréel gépp waa alal Cheikh Ibra Fall teew si day wax nag Cheikh Ibra Fall ñimewul bor dafa amuk fay jotaay bi ko gis xam ne jotaayu mag ñi muy fàttali ko mag ñi àndoon ak borom Tuubaa te damay wax ne kër moom boo séddee borom kër ga sédd nga ñëpp kon képp koo xam ne sa maam laale na ci borom Touba bir bis bii am nga ci wàllu moom te sëñ Touba moom moo dimbali ñëpp nag waaw damay wax ne bis ci njaareem Cheikh Ibra Fall murit bu mag ba sëñ Touba da koy xool ba yàgg ne ko Ibra Fall demal nga wooy fere yëpp ak waa dëkk bi yëpp nga ne leen tey ku ma gis sa yaram araamal la sawar waaye déglu Cheikh Ibra mbaax nga moom dana bëreet di daw suñ baa ne ko Ibra Fall yegsil moyen mu yegsi mu ne ko léegi li gën a gaaw def naa ko fi yow léegi Ibra Fall ku la gis sa yaram raamal na sawara maam Cheikh na bëreet wuti marché bi njëriñ ba dem ca garab ga gën a njool ca kaw yëg ca kaw ne dër ñu ne Ibra Fall daan na ca suuf mbooloo mi yëpp ñaw mu fëggasu daañ ne sama sang baa ne ma ku ma gis sa yaram araamal na sawara kon kooku dimbali na jaab kon bis bii nag Cheikh Ibra kon am na ci cër cër bu képp ku topp Sëñ Tuubaa rek jërëjëf bis bi am nga ci cër Cheikh Ibra Fall dara jëriñu ko dara jëriñu ko ci borom Tuubaa lu dul bëgg borom tubaa ak war warmaal ko nii gaa ñi def sëñ bi wax na ko sànq kilifa gi toog ca kaw gaa yi ni rëpp ah loolu ku jàpp ne dara la wala ay caaxaan lañ xamoo Sëñ Tuubaa de te sëñ Mor lii mu woote muy sant borom tuba rek la ndax dajalo di jang mbindum borom tuba mi dajalo di jang xasida yi borom tuba yi dajalo di waxtane gaay yi borom tuba yi loolu jamu yalla la ta Sëñ Tubaa wax nañ ne biskat dafa am mag mu ñew nuy su ko ne ko mbacke man day dama bëgg nga jox mab yobbal suma deme ñu sax ca Sëñ Tubaa ne dekk ba yagg mu ne fu ngeen tok di ma ak dima waxtane kon lii sëñ moor def nañ xam ne jaamu yàlla la te jaamu yàlla bokk na ci gaa yi bokk na ci xeeti jaamu yàlla yi mooy waxtaane gaa ñu baax na kon lii sëñ Mor def ñu ngi koy ñaanal baax sama borom sàmm ko te ko waaye sëñ Omar mii day kaddu yim jaarale ci man ndax xam naa ne moom Cheikh Ibra rek ko ñoo moo tax bëggul sax may tudd dara lu dul nañu wax Cheikh Ibra Faar rek te sant kon sëñ moor sëñ Omar Seck sant na gërëmaat na feddaliwaat na ak jàpp ci yow feddaliwaat na kóllëre gi mu am ci yow ngir jëmmi suñ tubaa rek ak Cheikh Ibra Fall kon sant nañ bu baax a baax dañuy bañ kàddu yu gudd ndax programme bi xat na moo tax ñu ne nañ tënk noonu rek waaye daal kàddu yaa ngi noonu moom sant na bu baax a baax a baax gërëm na bu baax a baax yëg na ne jàpp nga ko ngir Cheikh Ibra Fall waaw soxna maam Fatim Mbàkke moom it siñoomar nee na way juróom la nee na moo ko yar kon mi ngi koy siyaar baax a baax siyaar nañ ñëpp asalaamaaleykum Euh, kaddu yi nag xam naa ay kaddu yu gàtt yoo xam ni ñun ku ñu xam xam ni am na laneen lu ñu xamee lu dul joxe ay kaddu waaye nag day ndigal loo xam ni dafa bàyyeekoo ci sunu kilifa di sunu sëriñ di Cheikh Mouhamadul Basir di xalifa ma sàmba mi caatoom si dinaa Cheikh Aliou borom bari kàlla jóge ba njaareem ñëw teew ngir sëriñ Mamor Touré mi nga xam ni doomam la yàlla dogalit mu boole ñi nga xam ni ñoom lay rendre hommage di leen ñaanal di leen fàttaliku ci bis bi mu boole ci sunu wayjur woowu di sëriñ Massamba te Cheikh Mamadou Bassir di xalifaam nekk nii toog ñu and ak mom waye and ak alaaji cheikh Touré mi nga xamni rakam la ak Serigne Djili Abdou Khadir mom Serigne Mouhamadou Diaw ak Serigne moussa Touré mom Serigne Mouhamadou Diaw Serigne Mamor Cheikh mamadou Bassir neena mi ngi lay nuyu njabootuk Cheikh Massamba li tambalé ci soxna fat Ja mi nga xamni ni taw ba ci sëñ Massamba mi nga xamni ni moo leen ñëpp ànd nañu maase bég ci lii nga xam ni defal nga ko tey kër seex ma Massamba ndax bu nee ma sàmba di caatum Cheikh Aliou jël bis bu toll nii te bunti kër Cheikh yu bari nga weesu fi taaw weesu fi ñépp ñëw ba cim caat nga ni moom lay rendre hommage fàttali ko ñaanal ko sa jëf ji rëy na lool ci waa kër Cheikh kon nag sëñ Mamor noo ngi lay ñaanal ci barkeb sëñ Tuubaa ak xasaay bi sunu borom guddal saw fan te nga bis bii nag wax naa ko ci télé yu baree bari day bis boo xam ni képp koo xamante ni si yaa ngi defati màggalu seex yi nanu xam ni ci yow lañ koy royee ci yow it lañ ko gisee ndax yaa ko fi njëkk a taxawal kenn ku nekk. màggal diw ngay dégg màggalu diw màggalu diw waaye nag màggalu seex yi sëñ Tuubaa yi moom ci yow lañu ko njëkk a déggee faneen fu nu ko déggee it nañu xam ni ci yow lañu koy royee ci yow it lañu ko gisee maa ñaan nag mbooleem seex yi sëñ Tuubaa yi ñoom ñëpp yàlla nga làq seen gërëm ndax lii nga def ñoom ñëpp nga ko defoon sëñ Maam Mor jërëjëf. xam ne boo ko tuddee tuddaale nga kër Simna day tuddaale ñëpp. sëriñ Mor Touré sëriñ baa ngi sant yow nag def nga lu baax def nga lu rafet jàpp bis di ko tudde fàttali ko seexe seex sëriñ Touba loolu ak njàmbaar mayewu ko xel mu rëy mayewu ko taw feexi sëriñ Touba la ren jii nag dafa mel ni bis bi da nga koo féetale seexu sëriñ Touba yi waaye da nga koo delloowaat alquran ndax sëriñ Mañaaw Sylla ni nga ko tudde ku xam ci la xam ne alxuraan seen baax la jëkk seexul xadim dañu ca nekkoon seexul xadim ñëw dolli leen ko yokkal leen ko waaye sëriñ Mabé mii ñuy waxtaane itam démbam ak bërki démbam lépp alxuraan rek la ma sa fekk baax ba loolu sax moo tax sëriñ Touba am ci yéene ci moom ba defal ko la mu ko defal euh, ku mel ni sëriñ Sidi ñaŋ wax na ko léegi sëriñ Touba la mu daa def ci doomu aadama daawu ko def ci jox la werd way werd wala ñaan gooy ñaan wala loo xam ne da nga koy def wala téere booy takk moom daal bu la bëggee dimbali ci jataay bu gàtt la lay waxee jërëjëf nit mën naa def kër Sëriñ Tuubaa nangami at waaye bu demee ba bëgg laa sedd ci saasu gàtt la lay di ko jox la lam lay jox moo tax man ñu bari ñoo xam ne sax sëriñ bi jotu leen a téye dafa jonjoom ñoom rek bàyyi leen ñu dellu yóbbaale lañu yóbbaale ku mel ni signal yu turé mii dégg naa léegi asadul xadim wax ko ne Serigne Touba daf koo jox ab gopp bayloo ko benn kuppundal boo xam ne bariwul mu di ko bay noppeegut Serigne bi woo ko ne ko sëb cër sa borom andi na ko fi ñëwal jël ko te dellu lu mel noonu yi moo dox diggam ak Serigne Mabé Serigne Mabé dafa fekk way juróom ya nekkoon ci alquran ak sunna mbooleem ay maamam ñëpp ci jàng alquran ak di ko jàngale ak di ko wattu ci la nekkan ba mujj moom lañ doon puukare woo ci la ñuy rawante ci la ñuy gënante ci la ñuy njëkkalante sëriñ Mabéye fekk loolu nag nekk ca sax ca ba yàlla defal ko ca tawfeex moo tax bi mu gisee sëriñ Touba sëriñ Touba daf ko dimbali dimbali lu gaaw sëriñ Touba moo dul kenn ndax sëriñ Mabéye bi mu jàngee ba wattu li mu wattu ba pare dafa amoon pas-pasu laxas dem gànnaar dolli ko ji xam-xamam su dellu see dellu ci wér de xaadir ba maamam ya yoroon nekk ca rek nekkoon ndax ay maamam ci wérdu xaadir lañ nekkan ndax fekkante wu ñoom sëñ jamono waaye nag sëriñ du moor mi nga xam ne mooy seen maam te meññ leen waxoon na leen ni leen ki nga xam ne mooy borom jamono dey dina feeñ waaye buy feeñ ci penk bi lay feeñ du ma fi fekk waaye su ma fi fekkee comme fi fekk ci yéen nga jamonoonteeg moom na nga dem joxe sa bopp te joxe waa leen sunu bopp maa Mabéye nag bi mu jamonoonteeg sëriñ Touba keroog bi muy dem di fekk sëriñ Touba ci yéen Jolof sëriñ maa beey pas-pasam moo doonan ñaani werd ñaani werd gi nag bala koo def day dem gànnaar dolli ko ji xam-xam ba nga xamante bi li mu bëgg am na ko dëgg dëgg am ko mu delluwaat nag tawakkaltu alallaahi ga maamam santan dellu yoraat werd xaadir ba nga xam ne ca la ya nekkan di jàng ak a jàngale bi ko sëriñ ma baabu yebalee mu yóbbul ko sëriñ tubaa ay addiya nag sëriñ tubaa da ko taa faatee ñetti fan sëriñ maa beey nee na ca ñetteelu dafa woote am ndaje ca pénc ma ca buntu kër ba ca ceyeen joof sëriñ maa bay nee na bi sëriñ bi wooteeloo ndaje mi fere yëpp daje nee na mu ñëw bekk ca fere ya sëriñ Touba bi mu toogee dafa laaj ne ana fere ya ma baabu yónneen ndax ñu ngi fi sëriñ maa bay nee na ma ne ko mbàkke ñu ngi nii mu ne bismillah sëriñ maa bay nee ma àgg suuf sëriñ Touba ne dama leen a bëgg a misaal àjjana ak sawara ajjana ak sawara de mi ngi mel ni ceyeen jolof bii ñu nekk ak ak gànnaar yoonu gaal nekk fi woo xam ne day jaar ci am ndox yoonu tànk nekk fi nee na ki am dimbal te am tawfeex nee na day joxe ab tontu muy paas dugg ci gaal gi toog ba gànnaar dara du ko da mu faj ay soxlaam dellu si waat ki nga xam ne moo bëgg manum lëmm nag bëgg maa doxe fii ba gànnaar nee na day wut mbuusum baraayam mbuusum doxam la xasuuti gànnaar Sëriñ Tubaay wax bi nee na buy dem day dem ba yóbbalam boobu jeex nee na su boobaa nag iblis daf koy daf war ci aw fas nuru nuru lu doomu aadama su ëgsee ne ko ana foo jëm mu ne ko man de gànnaar laa jëm waaye bëgg naa ku ma yóbbaale iblis ne ko man du ma yóbbaale ku naanul ci sama ndox mi te yéegut ci sama fas yi mu ne ko man de dama ne taala gis ndox mu ma naan nee na su boobaa iblis te yokk ko ca ndoxam mu bon ma mu naan mu togg ko ca fasam wa teggeeg moom dem sawara wala yaasu billah sëriñ Mabey nee na ma xam ne pas-pas bi ma am ci dem gànnaar sàkku ji xam-xam bu ma jël seen ñaani yor de xaadir nekk ca la maam ya nekkan moom la ma Sëriñ Tuubaa di junj sëriñ maa bi nee na dama ciy dégg ne jaar ci yoonu suuf yi ba saytaane dab la nee na mooy lii ma wuti gànnaar di wuti xam-xam ngir jëli yor de xaadir dugg ci gaal nag joxe tontu ba fa àgg fa nga jëm sëriñ maa bi nee na dama cee gise ne mooy jébbalu joxe sa bopp di bi sa jataay ba la sëriñ maa bi jaayante ak Sëriñ Tuubaa jox ko boppam bi mu duggaatee ci biir Serigne Touba daf ko wóolu mu ñëw dégg naa léegi ku koy nettali Serigne Touba ngir ni muy defaree ak defaram ni mu gaawee ci benn jataay la woo Serigne Mabé mu ñëw mu xëcc benn këll bu nekkan ci wetam ubbi ko cere nekk ci Serigne ma Serigne Touba tibb ca cere ja ñetti dànk ba ñëpp ko ba jaab ak xam ba takk ca mu jox ko Serigne Mabé ne ko xiwloo ko mu xiwloo ko Serigne Touba xëccaat këll ba jëlaat satalaat boppam ga. tiimalewaat loxom ba ca këll ba sotti ca ndox ma ba cere ja taqan ca loxo ba ba dugg ca jaaro ba wàcc ca ndab la mu pusaat ko siñ maa bi mu jëfandikoo waat nee na Sëriñ Tuubaa ne dënn ba yàgg nee na mu ne réew mi de dañoo baaxoo ko am safa su sàll di ma ko nëbb waaye su ma ko gisee defaral la daal ni Sëriñ maa bi ndongoli Sëriñ maa bi nee na ma ne ko Mbàkke nee na mu ne ma dangaa mel ni café goog saafoon nañ la segg la ba defar la ba def ci defugaay bu rafet waaye suukara de san sëriñ ma baabu def laa yebalal ngir ma suukar la nee na sëriñ maa bay nee na ca jataay ba sëriñ Tuubaa ko wax ne ko foo seen ñaari nit ak ñett di fa toog la fay wut bu fekkee njariñul àddina ak àllaaxira nga fa la fa nekk ci sama loxo man Ahmadou Bamba la jóge bu ko boroom xamee ak bu ko xamut ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam ci kaddu sëriñ Mara Guèye mii jiite délégation bu jigéen ngàcc kër alxaaji sëriñ Mbàkke Guèye di taaw ak alxaaji sëriñ Mbàkke géey ak jëwriñam sëriñ Njaay Guèye ak sëriñ Maade Guèye Hamzatu ak mbooloo mi ñu àndal ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyu bi ak ziyaara bi njabootuk Cheikhul Khadim gi fi teew ak njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi fi teew ak mbooleem seex yi nga xam ne teew nañ fi te teewal fii ci yoonu murid wépp ñu ngi leen di jottali kàddu alxaaji sëriñ Mbàkke Gaye ci digalum sëriñ Mara Gaye ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar sëriñ Maam Moor sëriñ Mara mu ngi lay nuyu moom délégation bi mu àndal jóge ngàcc ak tund wépp fekk nañ fi léegi sëriñ Baas di al hadji mbay bass fekkante nañ fi ak serigne salih gom njabootuk serigne abdou salam gom daru salam jakan ñoo xam ne danoo bokk rewma ci dem ba tay te lepp di rafet ñu bokk waru serigne touba di ci ñoo ñi itam ñu ngi leen di nuyu bu baax di dalal jam itam tam mi fi tew mepp gis nañu cër bi yegg nañu ko te itam mbir la moo xam ne fukk taalibe nekk rek waroon na koo taxawal noonu ko sëñ Birahim lu tax siis la lu ku ko bëgg rek mën koo am ndax ñépp a ko bëgg waaye nii la ko suñ borom jagleele alhamdulilahi ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax di la sant di sant suñu borom di sant sëriñ Touba bi nga nu ci cëralee ndax cërub sëriñ Touba la moom ngay dundal ndax ñoo ñi kat méngoo naag assaadaatu amwaat tabki alayhim araadi tabkil araadi alayhim ka samawaati ñoo ñii ay jëmm lañu ñoo xam ne mat nañuy fàttaliku ndax tey jii bu nu goree ci safara te laa ngay àdduna ak àllaaxira dab nu wër nu ñooñee lañ ko war a sante ñooñee lañ ko war a gërëme Sëriñ Tuuba mbër la mu kenn mënta dab waaye ñoo ñi nga xam ne ñoo ko waroon ba cër yooyee mu doon seddale te jële ko ci sunu boroom ñu sàkkal ñu ca cër yu tool nii balu jamono yàggati yàggati ñuy jariñ ci Sëriñ Tuuba ñoñé mat nañu fatalé ko mat nañu gendé ko dafa melni kaddo yi sëriñ bi doon wax ci sahaba ya ba muy wax naan muhammadin wa alihi subbaqi wa sahbihi alxaawina fadla albaaqi fa athbatu nusha bila shiqaqi id malaku nufuusa bistirqaaqi wa atlafu alamwaala bilinfaaqi bila riyaa innaasi wannifaaqi ووثقوا بالنافع الرزاق توكلا عليه في الأرزاق كانوا إلى الأخرى ذوي انطلاق إزواجه الضرة بالطلاق لم يتركوا للزعر أو إملاق أمرا من المدبر الخلاق فكشفوا بجنة الآفاق بالعلم والعمل والوفاق أكرم بهم ñoñi Nyom la ñuy nyonye, ñooñee ndax dafa am fu ñu tegu woon ba man ñoo fàggul cër yu màgg yii kenn ku nekk ci nun am na cër boo xam ne ñu ngi la koy di la ko xoole te du du fit du sa ngóor lépp sëriñ Tuuba la kon na jaadu mag ñoo ñi nga xam ne ba muy tàng ñoo futteku dugal seen loxo te wutu ñoon ci lenn àddina jublu yàlla suñ borom subhanahu wa taala rek mat nañuy fàttaliku bu baax a baax a baax a baax ndax loolu rek a ñu fi desee te it li ñuy wax ne nit ku nekk la nga yor te bëggoo koo ñàkk te mënoo koo ñàkk wan ngay bàyyi xel la la ko may ndax bariwaa na ko yor mbir ba ñàkk ko la ko ko xañ rek mooy ñàkk a xam la ko ko may kon ndokk bi ngeen ñu dimbalee ci fàttaliku mag ñoo ñii bi ngeen ñu dimbalee ci dolli cëral mag ñoo ñii ñu ngi jéggalu bu baax a baax sëriñ Mara kàddu yi lu ci dëng rek ñu xam ne matale woon na lool fa ma ko jële waye xeyna sunu néew kattan ak suñu néew xam-xam mo ci feñ rek wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin bi bokk taalibe fi teew ci turu Cheikh sayyid al muhtar Silla mi nga xamne mo moo togay toogaay ak Serigne Magnan Silla tey mu boole ñoo rakam ji di Serigne Baay Silla mom Cheikh Ahmad Bamba Silla mom seigne Magnan ak mboolem njaboot gi yëpp te sëñ Modou Mbaye lim na délégation bi léegi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa yoonu murid yëpp di ko ñaanal bu baax suñu borom dolli ko ak wér ak kattan moo ànd ak bokki taalibe yi eggale mboolem naal yi nga xam ne. am na ko ci yoonu maamam bi ak ci Cheikhul Khadim ni ki noonu it la ñuy eggale nuyoo ci suñu wajju Cheikh Ibrahima Touré mi nga xam ne moo yilif kër Serigne Aliou Touré barikàlla tey li ci teg it suñu weneen wajjur muy Serigne Mbacke Gueye mi nga xam ne mooy toog toogaayam suñu maam Cheikh Mabé Gueye tey ci bu ñu leen tuddee nag tudd nañ mbooleem Cheikh Serigne Touba yi ak fi mën a bu baax te ñaan borom doon leen ak wér ak ku ci ne jataay ba nga ay naal ko sa njaboot eggali ko di fas yéene yëkkate kàddu yu tënku ndax ni ko sëñ bi waxee léegi ne jataay bi demee mel na ni toogaay bi yàgg na te xëy na ñàkk ñun ñi di fa sori di wax rek ni Serigne Makhtar mi ngi feeñal mbégteem lool ci bis bii nga xam ne dara jaale nañ ko ñaari way juróom muy Serigne Mañaw ak Serigne Mabé di ci feeñal mbégteem njaboot gi nga xam ne moom la yëf yëpp góor ak jigéen ma ak ndaw te mu doon loo xam ne dafa ëmb lu baree bari mi ngi wane kan mooy ñaar ñooñu mu tudde bis bi. te mooy Serigne Badiane ak Serigne sëriñ Serigne Mandé li ci sang yu baax yi wax léegi di jàpp ci delsi nam ñëwee ci Serigne bi ak la nga xam ne indi nañ ko ay yoon Serigne bi gàntal waaye ba bu Serigne Mandé yanoo indi sëriñ bi jël ko day wane ne nit ku sell la woon lu muy ñëw ci ku baax ki man ku baax ki na ko woon dolli Serigne Badiane it foofu yi rek la jaar. tawféex bi mu am yépp ndimbalul sëriñ bi la amul it ci njëlbeenam ba ci jeexalam lenn loo xam ne génn na sëriñ bi bokk na ci rek bi nga xamee ne fekk na ko baax ci te jolof di yeesal pas-pasam la ko sëriñ bi wax moo wecc lépp ndax dana ko antum ahlul qur'ani wa ahlul qur'ani hum ahlullah yéenay niti alquran te niti alquran ñooy gaay yàlla yi loolu nag ku ko sëriñ bi seedeeb doy na sëkk foofee it la ko ku baax ki waxe woon lan mooy càpptée fa sëriñ ma ñaaw ne ko sàkku naa de lépp loo may defal tawfiix na ma ko dencal ëllëg sëriñ bi nam baaxoo nga xam ne alxuraan rek lay waxtaane di ko tontoo lan ko ca daal di mooy wala laa xeetu xayrun laka mina luula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda loolu nag ku xam sababu nuzul aaya ba ak li tax suñu borom wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa da nga xam dëgg dëgg mën naay wax ja lam doon sëriñ bi daan jëflanteeg moom bu baax ci alxuraan ket li nga xam ne mooy ndàmbal di fàggu téefam moom bu baax alxuraan jooju yi moo tax sëriñ Saliou man mii fekke naa mu témoigné ne mbaarum suñ ma ñaaw ma woon ca njaareem nga xam ne ci biir keesu boppam gi la ko sëriñ bi daan defal lu mbaar sëriñ Saliou ne ku ne dégg nga ko te sëriñ Tuubaa daaw ko fa def loolu lu dul topp kaamil alxuraan yi koy indil lool yi rek moo doon na ko ku baax ki doon liggéey loo te loolu yi ma wax léegi na wax na ko ca Jolof bañ tasee ba ko fa fekkee da koy firndeel bu baax a baax a baax tawféen ji nga xam ne amoon na ko ci itam bokk na ci xasida gii nga xam ne moo dañuy wax almanahilu saafiyatu li kulli sam'an nga xam ne xasida yi bari lañ ci dajale nga xam ne boo ko xoolee daanaka lépp alxuraan la génn ko wax nañ ne sëñ Mañaw ci jëmmam moo amoon yaram wu sutante ba mu ñëwee wax ko sëñ bi sëñ bi génn xasida gi mu bes tàq tooy xepp jox ko ko mu barkeeloo ko ba tey jii tawfeex ji ci amoon mooy Cheikh Salih bi nga xamee ne njabootu sëñ Mañaw ñi ngi sàkku ji aw tur ngir daayira bu tënk njaboot gi tur woowu la leen jox te booba xamaguñ ne sëñ Mañaw la sëñ Tuubaa joxoon xasida gi kon daa mel ni mbattu lu dellu ca ndaala la bokk na ci tawfeex ji mu amoon ci sëriñ bi mooy sëriñ bi wax na ko ca njaareem ne ko ci wax joo xam ne nii jot naa ko leeral ci plateau bu amoon dama koy tënk rek ndax waxtu wi sëriñ bi ne ko mañaaw ñaaw dama laa nawloo nit ku ko nawloo da ngay jël ci moom denc ci moom loolu nag firnde ja lees ma lees xam na ndax néew na foo mën a wàññi juróom-ñett ñoo xam ne nii ñëpp ci ummaxaatul muridiin lañ bokkoon te ku ci siñ ma du nijaayam moom ndayam moom ndayam ñoo bokk lépp du jar ñu koy lim ndax ñëpp xam nañ loolu di ak mbokkoo goo xam ne nii bu wér la te loolu mooy wéy ba tey ci njaboot Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne moo fee sëriñ ma ñaaw yi doonoon koo xam ne daa joxoon tàkk ci Sëriñ Tuubaa suñ ceerno geloon nga rahmatullahi alayhi moo ma nekk ne amam mel nam sëriñ maam laa ma xam di koo xam ne waxtu julli jot na su ko baax ne ko demal loolu nag ndimbal la ko sëriñ bi doon dimbali rek la du dara ndax kanamu sëriñ bi kenn du fa dara te loolu koy firndeel ne moom jàppatoo bari na jataay yi ñu daan ànd bi di ko laa biire ci alxuraan di ko ci ubbi waaye lu ko mos a laaj rek suñ ma ñaaw day xam ne da koo suñ ko bëgg a dimbali mu ko ah loolu de mbàkki ba muy laaj loolu sëriñ ci alxuraan tëdd na ci daaraam di jàngale ba jàng mu ne alxuraan fépp ak faatiha yeen ci man boo xam ne alxuraan fépp ci yow nag boo demee di laaj dara ci alxuraan bëgg a dimbali ko la waaye xam ne ki ngay laaj mooy kiy dimbali jàpp ñëpp moo tax nga koy laaj loolu nag mooy tawféex bi nga xam ne amoon na ko ci sëñ bu mag bi bu baax te muy loo xam ne nii dundalu mbokk rek la sëñ Sidi Ñang mi doon wax léegi dafa wax ni sang yii nga xam ne ñoo fi teew seen maame ay borom bi jamono lañu woon sëñ bu mag bi maa ngi ko jëlee ci doomi sëñ Abdou Lahad mu jëlee ko sëñ Abdou Lahad moo ne sëñ bu mag bi moo wax ci gémmiñam ci làmmiñam ne ñett ay borom bi jamono lañu woon muy sëñ Mor Libaas Si la mii way juru sëñ ma ñaaw nee na jamono la woon sëñ Majang Faaloo borom jamono la woon ak geneen kilifa goo xam ne beneen tarixa la bokk ne jamono demee tax du ma tudd turam loolu yi nag seede sëriñ bi la waaye ku baax ki nee na ñoom ñëpp ba ma ñëwee dañoo bàyyi cër bañ yoroon ñëw jébbal ma seen bopp loolu lay firnde ja mooy ku baax ki bi jógee ci tukki bi bi muy wër ba yegg si Kajoor ñëw na ca barabu suñu Mor Libaas la boobee nga xam ne def na ko fukki fan ak ñaar yoo xam ne bil bu set dana ko wàcc gal boobu sëñ baa ngi ci ñaxal ci afra dal foofee la ko si ma ñaan jëkk fekk yeesal ak njëbalam ginnaaw bi mu fekk waat ko jox ndax dane bàyyi ba suma sëriñ fekk si ma ma yeesal sama njëbbal ci moom dug taalibe dama koy fekki waat loolu yi suñ Mor Libaas moom nga xam ne mook suñ mbusoobe dañu jaayi sëriñ bi ñoo àndoon jàngi ca gànnaar fa la seenu mbokkoo tàmbalee moo tax ku baax ki da daan wax ne sila silla yeeg ñi sant buso nañuy kalante tey jënate ndax seen kër yee ñoo dem ca àjjana loolu wax Cheikhul Khadim la kon nag mbokkoo googu ak jaxasoo googu moo amoon ci digganteem ak ku baax ki ku baax ki tànnoon ko xamal ko ne ko dama laa nawloo loolu it man yëpp xamoon nañ ko suñ ma demee ngeen firdaws radiyallahu anhu bi muy tudd si ma ñaaw ngeen nii si ma ñaaw xamante wuñ jaxasoo wuñ waaye bañ tasee ci ñaari la mu ko wax mooy lenn képp a tax ma tudde la ko xam cër boo am ci si Tuubaa sa xam-xam ak sa ragal yàlla képp a tax ma tudde la ko moo tax euh, cër ba yi dellu si na suñ baara mais moom la waajuram Cheikh Ahmad Bamba si la loolu mooy jëflante bi mag ñi doon jëflante mu mel ni nag lii suñ Maam def tey dafa dundal rek mbokkoo nga xam ne moo amoon seen diggante waaye li ci gën a feeñaan mooy nit koo xam ne ab xolam daa sell ba jëlut lu baax jagleel ko këram bàyyi ñi ci des xam ne ne suñ Tuubaa mbooleem mag ñi nekkoon ci ronam ñëpp da leen a tibbal bañ doyal sëkk te ku yéene sa morom la am suñu euh, Maam Mor lii mu def yéene yeneen cheikh yëpp li ñu am na ndax kër suñu Aliou bu sell yi lay wane xol bu sell bu taxul dara suñu borom dafa suuratu shuara yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim ëllëg yowmal xiyaam xol bu sell képp moo ko mën a jëriñ nit waaye du leneen yonentu alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis bu wér ne inna allaha taala laa yanduru ila qulubikum wa amalikum wa innama yanduru ila laa yanduru ila suwarikum wa amalikum wa innama yanduru ila qulubikum yonentu salaa sallam mi wax ni suñu borom xoolut seen jëf yii ak li nga xamné ni nii ngeen nek di mel waye limi xol ci yéen moy xol yi nga xamné ni mo nek ci seen biir ta bu sété lépp set mom la ko ci xadis ba ne ci biiru yaram ala inna fi jasadi mudghatan ida salahat salaha aljasadu kulluhu wa ida afsadat afsada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb xol rek moy li nga xamné bu sété nit ki mëna a li lii suñ mamoor def nak xol bu sel lay wane waye def ju rafet lay wane def ju rafet kat moy li am solo ndax moo fi indi آه، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا القرآن وح خال كان مو جنا سيل تيان جف مرة سين بالدين يف جف جي سيل جف يرفع خال بس سيل ما هو قيلا مرة خلي سين ما مرة كيلو على رك ترى يدل لين كوي سان تبو باخ ديكو غير كتور سين بارا مين خم نه ما تيوا سين مختار تبو كتيوا لي تيوا لين جبر سين عنا يب ديكو خلنا كلي مدة رفع نلول سين خال سيل نتي نقول لي جو كل رجوا خم نه مين كوي دينك سين بارا سين تبو tey ñaan mu bañ a dog mukk ilaa abadil abidin di sàkku bu baax nag ni ko suñ bi waxee ne ginnaaw jataayub ñaan la te ñu ngi ci bërëb boo xam ne ni mën naa ne ci xoromu Tuuba la bokk ñu gën a teewlu sëriñ bi te ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ dendal suñ borom doon leen yër ma ne ndax di ko def dana tax fee yàgg ndax dañ lay delloo ñaan bi kon ngeen jéggal ñu baax ci kàddu yi di wàcce suñu kàddu di jox suñu Modou Mokhtar si la nii mu jébbal suñu Maam Mor addiya nga xam ne jóge na ci suñu mañaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا sunu borom subhaanahu wa taala noo ngi koy sant bu baax a baax te di ko sante Sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa it noo koy sant bu baax te di ko santee sunu borom noo ngi julli ci muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sunu boroom mu fab ay leer yu baree baree baree baree bëri dolli koo tëbb ci ak ruuxam gannaaw loolu kàddu yi xam naa dañ koy gàttal rek ndax jataay bi yàgg na te li fi jig lépp ak dëgg la dara génn ci alxuraan njàngaleem sëriñ bi waaye sëñ Mamor noo ngi lay xamal ne bis bi daa woyofut ci noonu bis bi daa diis lool te ay mbir yu baree bari moo ko sabab ndax day bis boo xam ne da nga cee yëkkati cër cërale ko sëñ Mañaaw loolu lenn la ci li tax bis bi am ci ñun dayoo bi mu amee waaye nag du loolu dong day bis bo xamantene ne ne murid yëpp nga ko defal day bis bo xamne ne bi yep la ñeel day bis bo xamne ne man japp na ne bis gënu ko am solo ndax ku xam cheikh seigne touba yi li ñu jëmmal ci yoon wi seigne touba bamay dem ci tukki ba di genn mu doy war lool ñu gis seigne moussa Ka di wax taalub sëriñ bi daldi fay fatuba ak mbacke cëy tayaka ak a boba, boba booba de bu sëñ Tuubaa amutoon cheikh fi bu fekkutoon mu wajal ñi mu wajal kon mbir mi dana xawa lol, doy war mudafar, waye fekk na mu defar am sëñ Mañaaw Silla fekk na mu defar am sëñ Mabé fekk na mu defar sëñ diw ak sëñ diw ke nek kadior ke nek njambur ke nek Bawal ke nek Siin fune ñu téye fa leer gi ngànk ko bu dëgër a dëgër ba mu dellu si waat fekkaat ko fi nga xam ne bari na ñoo xam ne ci gannaawam lañ jébbalu kon seex si ñooy jumtukaay yi sëñ Tuubaa jëfandikoo ngir liggéey bi mën a yegg si fii mu yegg si sëñ Mañaaw nag cër bi nga ko ci jox man sañ na maa wax ne cër bi balaa neex kenn sëñ Tuubaa la njëkk neex ba noppi ndax sëñ Saaliwum sëñ Tuubaa moo nettali te am ci jotaay bii ñoo xam ne fekke nañu ko benn ci sëñ Abdou mii ma dendal mu wax ne sëñ Mañaaw keroog ba muy jébbalu ci sëñ Tuubaa ci Jolof sëñ bi dafa bég ci ak dikkam ba reyal ko aw nag kon sëñ Tuubaa njëkk a bég ci dikkuk sëñ Mañaaw ci moom te sëñ Mañaaw sonalul sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa waxoon ci sëñ Malick Bassène si ak sëñ Mor Khary si ne bu ñëpp meloon na ñoom aw sàkket mën na maa bañ a wër loolu mo dal seigne ma ndax seigne bi da wax ne lawla al wal hadith wa manasi'ul wara ma bittu fi dunya laylatan wahida. budul won ak alquran ak hadith ak jëriñ minde fi genn guddi duma ko fanan ci adina kon ñi seigne tubaa fekk ci téré bi ñi seigne tubaa fekk ci téré bi nga xamni alquran alxuraan na fastam fik seigne tubaa ne tamasaktu loolu ci seigne sëñ ma te lii dëggal loolu da koy firndeel ci gàttal rek duma guddal wax nañu ne am na bis ci daaram boo xamante ne ne bàqara ba minal jinnati wannaasi robo ju nekk am na dongaam boo xamante ne ne béqi na ko ci aliwo ba mu des jenn robo képp joo xam ne ma nga ca xisib ju ñuy wax ilayhi yu raddu boo demee ca suuratu shura da nga ko fay fekk muy wa ma kaana li basharin an yukallimahu llahu illa waxyan aw min waraai xijabin ila axiri aya loolu nag man damaa wax ne la tax robo jooje def ca mooy sëñ Tuba daa beru ci ay mayam bindal nañ sëñ Tuba ab kaamil ci benn bis mu ne lii de xanaa ba dina sosoo ba tey maa ko njëkk am ñu ne waaw mu ne damaa amuk pay rek robo joojee bu ma toon kon day mel ni mayuk sëñ Tuba googee daa am ku ko ca fekk loolaa tax mu des waaye sëñ Mañaay bokk gi mu bokk ci sëñ Tuba moo tax loolu yi mën a am waaye nag sëñ Tuba ay mayam dañ ko caa wéetal subhaana wa xaadali maa xaadali wa afrada alhamdulilahi rabbil alamin sant nañu sunu borom bu baax baax sañ Mamoor bis bi daa rëy lool lool lool lool bis la boo xam ne taalibe yépp ci war a jàpp bisum ñépp la war a doon waxuma lu rëy li nga ci def waaye lépp dafa yàlla bis bi dara yi àddina wala moom la ku ci dëkk rek danga xam ne bis la boo xam ne sëñ Tuubaa dong ko tax a jóg loolu xam nañ ko bu baax a baax moo tax noo ngi sant bu baax a baax di wax nag na ñun njabootu sëñ Mayaw gépp ay taalibe lañu yoo xam ne ci sëñ Tuubaa lañu aju bootu ci gannaaw Cheikh mu Muntaqa ñun ñii sun maam ya dañ doon wut yàlla ci sëñ Tuubaa sun bàyyi doon wut yàlla ci doomi sëñ Tuubaa yi moo tax njabootu sëñ Tuubaa gii ñu jamonoonteel wàccuwaay wi am ci ñun kenn amu ko képp ku ngeen dégg muy xaw wax ci njabootu Sëñ Tuubaa gi ay wax wala ñàkk leen a warmal wala ñàkk leen ñàkk leen a joxub cër na ngeen xam ne du ñii njabootu Sëñ Tuubaa gi budutoon dara nga xam ne Sëñ Tuubaa nee na yow yàlla mii mayaakoon bi may ma képp koo xam ne dana juddoo ci man mu baax ba noppi soog ko bokk ci man lii jut bi kaw ni kulli ma tawallada minniya saalihan yu safil xalada waaye dama ne budutoon loolu sax xanaa sëñ Tuubaa ber bor bi mu lebal yonent bi sallallahu ci ay sëtam xanaa war nañ ko koo fay te moo ne ñooñe de seenu càlla la gudd na lool waaye tërëwut sëñ bi di wàcc ay lalam di leen jox di leen taral di leen jox lu ne moo tax ñun njaboot sëñ Tuubaa gi yëmutoog yëmuñoo ñenn ci ñun la ca dolli kuwaat mooy sëñ mbokki seex yii ak nawlonte gu mat sëkk lañ àndeek ñoom dañu leen def na suñ jëmmi bopp ji ñun dañoo war di tuddante ay doom di joxante ay doom ma dafa ak cër dafa war a am suñ diggante bu wér a wér a wér loolu dama ciy soññee bu baax a baax damay faral di wax ne la la la la mbokku taalibe mu ne war ngaa bàyyi xel man mii kat la daloon iblis ca aadama baa duma dal ci sama iblis xam-xam akub juddu wala mën naa ne ak cosaan rekk moo ko yiir ci diggam mag aadama alayhi salaam akub jaamu yàlla yooyu yëpp nag ñun jaay nañ ko jox ko Sëñ Tuubaa bëgguñ ci dara moo tax noo ngi sant bu baax a baax sëñ Mamour ci bis bi kàddu yi dañ koy gàttal foofu mu mel ni addi ci sax xam naa ne moom du du du du jar di tudd wala di fésal waaye li li li li suñ pas-pas daal mooy dañoo jàpp ne lépp lu ñuy def ci bis bi ñun ñoo ko war a def lépp loo xam ne day tax bis bi jag rek ñun ñi ñoo war a tax loolu jag moo tax sëñ Matar mi nga xamante ne ne sëñ Matar si la mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Minaaw di sëñ kilifa ñun ñëpp te nekk ci njaboot gi ñu dikk ci aw turam addee ji it muy addee ji nga xam ne moom la joxee ci bis bi addee ji nag xeeb nañu ko lool waaye comme amuñu lenn lu dul alxuraan alxuraan mooy sunu ndona moom la ñu xamee fuñ tudd sëñ Minaaw ne mu siiw mu kaang ma mu dundam gépp mu jaay ko ci alxuraan ta jotaay bi ñu fi teew ñu ci bari bari na ci ñoo xam ne ay sëñ daara lañu daara lañu yor di liggéeyal sëñ Tuubaa ci alxuraan moo tax alhamdulilah kaamil bi waaw dañ ko mottalee addiye ji rek ngir bu néewee mu baril ko bu ñàkkee barke mu def ko ca bu manqué it mu mottali ko incha allah ndax alxuraan rek nun moom la am noo ngi sant bu baax a baax sëñ Mamor الحمد لله تبارك الله السلام عليكم ورحمة الله تبارك الله مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم رب الذي قد قاد يكون فيكون كرما الله بما لم يكن ولا يكون لسوى يكون الله يكون فيكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي jullit yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara di jiital ci nuyu bi ak ak ñaan bu jëm ci Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifatul am di tarixatil muridiyya noo ngi ñaan yàlla sunu boroom mu dolli ko fee yàggal lool dolli ko wér ak kattan ak ndimbal ba liggéey Serigne Touba yu fasantikoo yii mu tàmbali ak yii mu yéene mu àggale lépp te am ci la kawe njortam te ànd koog njabootu Serigne Touba gépp ñoo ngi ñaanal ak siyaara Serigne Ibrahima Touré xalifa Seydina Aliou Touré barikalla yal na ko sunu borom yàggal te dolli ko ak wér ak mbooleem njabootu Cheikh Aliou Touré barikalla gi yëpp noo ngi nuyu ak siyaara kilifa kër gi ñu nekk di Serigne Bassirou Touré xalifa Serigne Dame Abdourahmane Touré yal na ko suñu borom yàggal te dolli ko ak wér ak kàttan ak ndimbal noo ngi nuyu mboolem taalibe Serigne Touba yi nekk ci baas bi ak yi dégg suñu kàddu ci turu Serigne Mamour boroom borom Touba jërëjëf di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi jëmm ju tedd ji nga xam ne mooy sëriñ Touba ci jotaay bi te mat ko sëkk it ci lu dul sikki sàkk muy Serigne Modou Abdoulahi Mbacké moom Serigne Cheikh Astou Fall Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak bokkam yu tedd yii nga xam ne ñoom la àndal moom wax nañ ko léegi yàlla dogal na mooy kilifa jotaay bi bis bii tey bu ne woon na am bu ne woon na dakk bis bi sëñ Mamour dootu ko wooteeti ndax mooy kilifaam moy buntam ci Serigne Touba te mat ñukoy sante diko di diko ñaanal ci turu njabootu Cheikh ali Touré barakallahu gep suñu borom yagal ko fi lool te doli ko wër musal ko ci ndok ak ndap ak bépp gàllankoor ba yene ji am ci liggéeyam Serigne Touba bi te mu yene ju kawé lool mu agalé ko tam am ci lu kawé njort ak mboolem njabootu Serigne Touba gi na ci ginnaawam yépp mboolem ay talibé ñuy nuyu. mboolem seexi Serigne Touba yi nga xam ne teew nañ ci baas bi yëpp buñ ci jiitalee rek ñi nga xam ne ñoom la Serigne Mamour chef de bis bi danañ yóbbaale bunti kër yi seexi Serigne tubaay yi nga xam ne teew nañ fi yëpp tey jiital ci njabootu Serigne Mabey Guèye ñoom ñëpp noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara di nuyu njabootu Serigne magnaw silla waye di nuyu mbollem ñi nga xamne rek teew nañ ci bis bi ci Serigne Touba seexal sen ma mo xam ñi ñewon ci suba dem ak ñi nga xamne ne amoon nañ yéene ñëw te suñu borom dugalu ak ñi nga xamne ne ba legi ñi ngi ci kër gi di teewlu waxtaan no ngi siyaare bu baax sëñ Basiru moom Cheikh mohammedul muntaha Mbacké khalifa général de mourid mom mo and ak Serigne Modou abdullahi xamna ne ca kanam tuuti danañ ci ñëw incha allah Mbàkke noo ngi lay siyaare bu wér-wér di wax mboolem kilifa yi teew yëpp rek ne Serigne Mamor bis bi da ko ànd ak mboolem njabootu Cheikh Aliou Touré barikàlla gépp te mooy ay bokkam ndax bis bi kat lum rëy rëy buñ ñëwoon te fi bokk yi. danañ ko jéem a rafetal waaye day bari lu des waaye ay bokkam yëpp la ko àndal kon Serigne Modou ñu seereel la lool Serigne Soxañ bu Touré mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Sidi Mokhtar Touré ñoom rek mi ngi fi ànd ak ay rakkam Serigne Cheikh Touré di xalifab Serigne Mbacke Touré moom sëñ Dame Abdourahmane Touré moom it mi ngi fi ànd ak rakkam Alxaaji Mbacke Touré niis di jëwri ni kër gi. di khalifa Serigne Souhaïbou Touré mom serigne Daam abdou rahman momit mi ngi ci bass bi tok ànd ak ay rakam al alxaaji Cheikh Touré di khalifa Serigne Cheikh Touré mom serigne Daam abdou rahman momit mi ngi ci bass bi tok ànd ak ay rakam gis ngeen légui niñu ko waxé sunu kilifa yi nga xamné bawo nañ fi légui muy Serigne Bassirou Touré khalifa Serigne Massamba Touré di caatum Cheikh Aliou Touré barikallah jóge ba Njaaréem léegi la fi doog a bawoo àndoon ak ay rakkam Serigne Djili Touré moom Serigne Mouhamadou Diop Touré mu Cheikh Aliou Touré barikàlla moom it mi ngi fi teew buñ tuddee noonu danañ yóbbaale mboolem njabootu Cheikh Aliou Touré barikàlla gi fi nekk yëpp ak mboolem suñu bàjjenu tedd yi fi nekk yëpp mënuñoo lim ñëpp waaye buñ jiitalee ji cër boobu soxna Mame Bousso Touré moom sëñ Dame Abdourahmane Touré ibnu Cheikh Aliou Touré barikàlla danañ yóbbaale mbooleem njabootu Cheikh Aliou Touré barikàlla bu jigéen bi kenn kenn desut kon ñu xamal leen rek ne sëñ Mame bis bi ànd na ko ak ay bokkam kenn desut démb ba tey ñi ngi fi bagante di noote kër gi ñenn it booba ba léegi ñi ngi fi seen yitte jëpp mooy bis bi jag ba mel ni mu ñu doo ko delluwaat ci seen liggéey ak seen yitte kon sëriñ bi loolu ñu seral la ko sëriñ Maam Mor wax na nag ay kàddu cant rekk lay yëkkati yoo xam ne dafa fees dell xolam ba nim ko yéenee bëgg ko ne waxe moom xam na ne lottu na ci te mënewu ko noonu ndax bis bu toll nii moo koy màggalal seexi sëriñ Tuubaa yi di leen ci fàttaliku di leen ci ñaanal waaye njabootu sëñ tubaa gépp ànd ko ak moom sëti sëñ tubaa yëpp ànd ko ak moom kenn desul sëñ Moodu Mbay Njaay lim na délégation yi nga xam ne ñoo fi teew buñ ko limaatee rek day gën a guddal wax ji waaye mën nañu dara ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada ñëpp teew nuñ fi tey siyaare sëriñ Mamoor ñaanal ko xamal ko ne ko bis bii ngay def di ko defal mag ñi àndoon ak Serigne Touba ñun la waroon kon Mbàkke loolu ñu seeral la mbooleem ñi Serigne Touba defar seen maam it amul kenn wala ñenn ñu teewut fi tey képp ku suñ borom dogal ak jotam mayu ko ko yabal na ndaw lu ko fi teewal kon sëti seex sépp fi kon sëriñ bi loolu it ñu seeral la ko kaddu cant yi nag noo koy dale ci njabootu sunu maam Serigne Mañaaw Silla te sëriñ Sidi Moxtaar Silla nekk ci bopp bi di ab xalifaam yilif njaboot ga yëpp teewaay ak taxawaay ak doxaliinu waa kër sëñ Mañaaw Silla rafet gi ak yéemu gi ak taaru gi jéggi na dayoo te njabootu Cheikh Alioune Barikalla gi fi nekk yëpp mat nañ ci seere sëriñ Mamor. yëg na ko te xam na ko bis bi wan ngeen ko ne seen bisa wan ngeen ko sax ne bu ngeen ko wuton serigne mañaw it ñun lepp lu ñu war ci bis bi danañ ko def ndax serigne mañaw kenn mënu ko genn ci ñi andon ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon nak serigne mamour wax na ne mi ngi leen di sante di leen gëreem di am ci seen ay taxaway lepp rafet na ca njëlbéen ga ak mujj gi muy bañ tàmbalee woote ba ba fii ñu toog tey lu ci nekk rek la leen ci waroon def ngeen ko ba mu mat sëkk te lépp rafet te loolu mooy li mag ñi ànde woon ndax Cheikh Aliou Touré barikàlla noonu rek la ànde woon ak sëñ ma ñaaw si la kon sëriñ bi wax na ne sant na leen ci loolu gërëm na leen xam na ne bis bi ñor na leen lool xam na ne bis bi yitteel na leen ndax jëfe ngeen ko wanee ngeen kon serigne baa len leen ci di len ci gërëm di nan ci daraja yi sëñ tubaa lépp lu lu ko ci serigne touba na a dël ak magni yalla nako bokk ak yeen di len jotal ay cadeau yu ak ngeureum yo xamne bu ngeen delo ngeen jotal ko kilifa ga serigne Sidi mokhtar ak mbollem jabaru serigne ma ñaw ci la gépp sëriñ wax ne mi ngi sant it waa kër ma Mabé Guèye ci njiital El Hadj Mbacke Guèye mi nga xamne ne khalifa serigne sëriñ Mabé ca Ngàcc yéen kat Serigne Mamor wax na ne mi ngi leen di sant ak mbooleem njaboot gi nga xam ne rek ñi ngi ci baas bi te teew fi te ñu bokk ak ñoom lépp te bañ tàmbalee bis bi ak léegi ñu ànd ak Serigne Mamor ci jëf ak ci wax tey jii ñu gën koo taaral gën koo kulóor gën a rafetal bis bi jox ko yitte joo xam ne képp ku fi teew te bokk ci njabootu suñ tuba xam nga ne taxawaay bi ngeen taxaw ci bis bi wane ngeen ne seigne mamour uppuli wu dara ci bis bi muy def ndax bisum magaluk cheikh seigne touba yi la te ken uppuli wu ci seenu jër jël ngeen ko nangu ngeen ko te wane ngeen kon seigne bi wax na ne seen taxaway rafet na mi ngi leen di sant cant koo xam ne fum na fu mu tàmbalee mi ngi koy seereel kilifaam gu tedd gi di seigne Modou abdullah mi ngi koy kilifaam tedd yi di njabootu Cheikh ali Touré barikalla di ay wajurum di ay magam mi ngi leen di seen ay taxaway di seereel ay cyant yi sëriñ Sidi Ñang mi nga xam ne jóge na fi mohabit ci taxawaayam moom bañ bis bi ak legi ciir biñ ko ci jox matal nako ko te lépp lu ko ci war def nako ko Mamor wax na ne mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm mi ngi ñaan ci daraje Sëriñ touba lepp lu ko ci Sëriñ touba na a deul yalla nañ ko bok sëriñ Mamor wax ne mi ngi sant general Mor Cheikh Ibrahima Fall nak garab la ndax ku toll ni maam Cheikh Ibrahima Fall nga dem ba dégg fa général garab bu rëy rëy rëy la waaye loolu xaw ndax ñun ñi la xam day xam nañ ne ni maam Cheikh Ibrahima Fall daan doxe noonu yi ngay doxe ci wetu suñu am mel noonu yi ngay doxe ci biir kër njabootu Cheikh Aliou Touré barikalla noonu ngay doxe ci biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall noonu ngay doxe ci bunt kër yi njabootu Sëñ Tuubaa gépp ndax Cheikh Ibrahima Fall kat fii ci Mbacke Bawol dafa am bis jamono bi mu fi nekkee di fi doog a tabbi sëriñ bi génn doxantu fajar yem ci Cheikh Ibra mboolem buntu kërub ko sant Mbacke mu buub ko bale mbedd yi defar ko sëñ bi yam ci moom na xanaa ana kiiru Ibrahima Fall mu ne ko ah kay mu ne ko li nga def ana loo jublu mu ne ko wut yàlla wut yàlla rek sëñ bi ne ko Ibrahima Fall yàlla jënd jëmm la yàlla jënd jëmm la boo koy wut danga koy wut fenn boo ko amee am ko fépp boo koy wut danga wut fenn boo ko amee am ko fépp wax nañ na loolee bam mu jàllee lax Seex Ibra ñëw toog ci biir mbooloo mi ne leen yoonu sëñ Bàmba wi ku ci bëgg a jariñu da ngay gëm kenn topp ñëpp dangay ngay gëm kenn topp ñëpp ndax fu ne la fa ne sëñ Tuubaa ko fa def waaye yow général loola nga doxe mboolem bundi kër yi sëñ Tuubaa yi amoo ci volontaire te say kilifa it seeral nañu la ko ndax daaw ci waxtu wi ñi ngi ko tudde woon maam Cheikh Ibrahima fal nga ànd fekk njaboot gépp waaye gis nañ ci ab jàngat boo xam ne moo ñu firndeel ñun ñëpp ne ni Cheikh doon doxeem noonu ngay doxe ci biir kër Cheikh Ibrahima Fall ndax daaw day def nga ci ren ci jëf ji ci bis bi jëf joo xam ne wér nañu ne daaw nga ko yéene woon waaye bëggoo burum lu say kilifa say teggin mayu ko te bëggoo ñaaj nga delluwaat bóof ci kanam Cheikh Ibrahima Fall waaye mel na ni loolee ak yéene jooje ak pas-pas boobee moom la la Cheikh Ibrahima Fall faye bañ darajal bañ jox la cër bu rëy bii ci bis bi moo tax ci ñi njëkk a jëf ci bis bi ci nga bokk muy jëf yu réy yu fasanti ko sëñ Maam Mor yëg na ko njaboru Cheikh Aliou Touré barikal la gépp yëg na ko ndax njaboot gi kurus rek la boo jàppee benn per jàpp nga yëpp jëf yooyee ba mu agsee na ko mboolem njaboot gépp yegul ko seigne Ibrahima Touré mi khalifa Cheikh Aliou Touré barikalla yegul ko seigne basirou Touré mi nga xamne moy di khalifa seigne daoud rahman kon njabot gep ñoo ngi lay sante di la gëreem ci sa ay taxaway dembu ak tay di ñaan suñu borom Li nga yene diko liggey ci biir kër mam Cheikh Ibrahima Fall nga lax ci ngërëmul Cheikh Ibrahima Fall te yen ko mbollem kurelu alali maam Cheikh Ibrahima Fall a ah, loolu mom deug la yeen mom wuyu ngeen seenu tour alali Cheikh Ibrahima ngeen euh, serigne mam mo wax ne mi ngi sant it wa kër Serigne Cheikh Astou Fall mom mom dafa japp ne sax bu diggé ci sant leen man na fa tagé tembe fofu ndax sëñ Modou abdullahi mi di kilifaam luñ wax ci mom njabot gi ñi tew fi te xol jëmmam danañ xam luñ wax ci moom luñ Xarim rek touba wax na ko kilifa la koo xam ne mat nañ ne man nañ ne ndax sëñ baa ngi nii di dégg sët yi sëñ Tuubaa doon ñaan sët siñ sëñ Tuubaa war a ku ko réew ëllëg yomal xiyam moom mi ci la bokk ndax yitteem yëpp guddeem yëpp bëccëgam yëpp jeexal na ko takk ci jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ Tuubaa jeexal na ko tàkk ci jaamu yàlla ak sant sëñ Tuubaa jeexal na ko tàkk ci jaamu yàlla ak fas yéene doon talibeb sëñ Tuubaa yim nuru maamam sëriñ Basiiru ñemee su ko wax ndax sëñ Moussa Ka ba mu woy sëñ Abdoulahi borom dër bi àgg na ci wax ko na ko am na yoo xam ne nag deesu ko tudd àgg na ci wax ko sax ne ko am na yoo xam ne bus ko tuddee catu la waaye doy na sëkk rek mbàkke ci liñ mën a tënk mooy nii nga nuroo sëriñ Basiru jëmm noonu nga ko nuroo jikko noonu nga ko nuroo aw melo ndax sëñ Tuubaa noonu lu waaye di nuru nurul daa fekk mu doon te garab meññandoo nuy nuroog moom kon mbàkke yàlla nañ fi yàgg yàlla na nga wér yàlla na nga mucc yàgg mbooleem njaboot gi nga àndal sëriñ Basiru moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa gis nañ taxawaay bi yow rek firnde nga ci lii ñuy wax ci sëñ Mouhamadou Ablaye ndax bu nekkutoon ci moom doo jóg ànd ak moom ak mboolem saraf yi tedd yi nga xam ne ñoom nga àndal noo ngi lay jéggalu nag toogaay bu yàgg bi ndax waru xam nañ bu baax sa diggante ak sa borom xam nañ bu baax sa diggante ak sëñ Tuubaa ak fi nga teg talibé yi lii yitte képp la kon ñoo ngi lay jéggalu coono yi ak tax toogaay yu yàgg yi di la sant ci turu sëñ Mamor di la gërëm di sant bu baax waa kër sëñ Masamba sëñ Masamba Touré te moom laa doon tudd léegi muy sëñ Basiiru jóge fi léegi jëm njëriñ te moom it ku ne xam ne du toog daa bëri yitte lool moo tax toogul ba cérémonie bi jeex waaye sëriñ Mamoor wax na ne mi ngi koy sant di ko gërëm ndax sëñ ma Masamba moomu mooy caatum Cheikh Aliou Touré barikalla te moom am na taw tawfeexi bi fi sëñ Tuubaa di jóge sëñ Tuubaa fi bàyyi aw turam sëñ Tuubaa bind aw kayit jox ko waajuram na ko bu gënee jamono ku koy mën di tudd na nga ko jox na ko jox kayit wi moom sëñ Tuubaa ko tudde sëñ Masamba Cheikh saa Jenn moo ko jàngal alquran ba mokkal te moom waajuram waajuram muy soxna bu Luum dafa am lu yéeme luñ ci bëgg a leeral loo xam ne dana tënkaale li tax ñu daje fi ngir sëñ Tuubaa ni mu noon jaxasee Cheikh si soxna bu Luum Cheikh saa Jenn moo ko yoroon am ceeg moom sëñ Bàkke Jenn mom Cheikh isa mom lañ wax seigne niis mo tax turundum yëpp ñu lan leen mo indi turu seigne niis mi seigne mbacke jenn mom mi bi ko soxna ci amé dañu dem ab dir seigne touba wolu Cheikh Cheikh isa jenn bam ñew ñëw mu soxna seyna na bu luum na ko bayyi bu idam jeexé nang ko jox Seydina ali Touré barikalla lolé de kuñ ko waxon ci ñun ñi buñ gënné nañ ci xalaat de du ñem ci xalaat ci sax waye lu ne mën nañ ko wax waye Cheikh isa bam gënné da da daal di jëfe ndigalu Sëriñ Tuubaa li waxtaan ak soxna si def li ko sëriñ bi sant ba iddaam jeexee mu jox ko Cheikh Aliou Touré barikalla Cheikh Aliou am ci sëñ Masamba mii di am caatam mooy wajuru sëñ Basiru mii fi teewoon te sëñ moor mii doon ko rendre hommage di ko fàttaliku ci bis bi ñoom it ñuy sunu ay wajur waaye ñu taxaw ci taxawaay bu rafet rafet kon nag sëriñ Mamor wax na ne mi ngi leen di sant ci loolu bu baax a baax a baax di sant bu baax nag waa kër sëriñ Saliou Touré ndax ñoom tamit Serigne moor da leen doon fàttaliku ci bis bi di leen ci rendre hommage muy sëñ Saliou Touré sëñ Saliou ku ne xam na jëfam ak pas-pasam ci yoon wi kenn dootu ko fàtte kon ñoo ngi sant wa ay njabootam yëpp ñi leen fi teewal di ñaan suñu borom mu dolli ko yërmande akum njëggal di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoom la sëñ Maamoor àndaloon liggéey bii te mooy ay bokkam ak taalibe yi ak soxna yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation bi sëriñ Mamor wax na ne mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci daraje sëriñ Tuubaa Cheikh Aliou bis bii lépp lu ci waay yéene wala lépp lu ci waay def lépp lu ci waay di séntu ci aw yiw ak lu mën doon yàlla na ci dajeeg loola te mam ci lu kawe njortam sëriñ Modou ñu lay seeral nag fi ñu wàccee sunu ay kàddu waa ñuy sant bu baax mboolem jànkati xasida yëpp buñ ci jiitalee sëñ Xaadim Géey mii nga xam ne dafa mel ni sax li ñuy seere ci moom moom la ñëpp seere ci moom moom la njabootu suñ tubaab yëpp di seere ci moom sëñ Xaadim mii fi ne du xewi mukk lu mu gën a màggat am njàngam di gën a neex fii ba téeméeraat am njàngam day gën a neex loolu ndimbalul yàlla la ci moom tawféexi sëñ tubaa la ci moom ndax digganteem ak sëñ tubaa day pas-pas bu dugg dugg dëgg boo xam ne ku jaxasoo moom xam ci dara te ñun xam nañ ko dara bu wér a wér jaxasoo naag ñun sunu kilifa te xam nañ fi mu ko teg te sunu kilifa gi mu jaxasool mag la jaxasoo mag ñi te xam na li xew te am na lu muy seere ci moom moom sëñ Xaadim Géey mii sëñ bi muy ko amuk taalibe la te xasida yi sëñ yi muy jàng fayiwu ko loolu yi jàngkat yi def sax bu ñuy jàng xasida yi di way xasida yi sëñ yi di ci tudd ku leen neex moom mii mosu koo def foo déggee mu tudd sëñ diw da ga jeex na ba muy wolofal ku mën a génne jàngi sëñ xaadim gi yu muy jàngi xasida di ci bërxal ñeneen na wax ku wormal sëñ tubaa ku bëgg sëñ tubaa la ku amuk taalibe la njabootu sëñ tubaa gépp la joxoon ma jox leen ab cër bis bi at mu jot ba ko sëñ Mamor tàmbalee ba léegi da koy ànd ak moom te du dem mukk te bis bi jeexut kon sëriñ bi wax na ne mi ngi koy sant cant goo gii ci la dugalaale mbooleem jànkat yi yëpp ndax roy waay la di sant yéen conférencier yi conférencier yépp Serigne salou sak alquran adi yépp at mu jot mok serigne mamour ñu and bis bi xamna da nekkon ci ay yitté ngir xataayam waye waxtu wu jot mo don ubbi waxtaan ci conférence bu noppé ñu doga a wéyal yam waye am lay sante ci turu mbooleem kat yépp serigne ganna mesere maxtaar serigne Mbay mbacke ñang ak mbooleem ñu ngeen ko seqal ñoo lay sante di la gërëm di sant mbooleem kat yépp ñu bëgg nak wàcc sunu kàddu koleere gu wér la itam ñu ko alxuraan rek wal moo foona bihadim isa haadoo wa saabirina fil baxsaay wa daraay wa hinal baxsi ulaayka lis na sadaqoo maanaam ñi nga xam ne ah, ah, dañoo jàpp koleere nga xam ne dañ koleere ga xam ne dañ koo amanteeg ñañ ko ñañ ko wëlëranteen ñu koy dundal mu ne ñooñee day ñu dëggu lañ maanaam nga xam ne boo toppee aaya wi na mu ko tàmbulee ci lay sal biru noonu mu ko waxee wax ay jikko yu baree baree bari yoo xam ne nit ki da koy def bu ko defee ba noppi nag alxuraan wax ne ñooñu de dëggu nañ waaw comme mën nañ koo wax rek ni nga xam ne noonu la ko waxee man amana billahi wal yawmil axiri wal malaikati wal kitaabi wa nabiin wa atal maala ala hubbihi sawal qurbe wal yataama wal masakin wabna sabil wa sa'ilina wa fi riqabi wa aqama salat wa ata sakat wal mawfuuna bi ahdihim soog a ñëw comme noonu ñu ko waxee nga xam ne nit ki day gëm jullit bi mën nañ ko message sax ci murit bi rek nga xam ne jullit bi day gëm yàlla gëm bis penc gëm yonent gëm gëm malaayika yi gëm téere yi gëm yonente yi nga xam ne suñ borom leen yónni woon ba noppi nag di def li ko war ci jullit yi maanaam ñi nga xam ne dafa am dañoo am àq ci moom ñoom mu jox leen ko di di joxe ci yàlla tax di dimbale miskin yi ak jërim yi di dimbale waytu mu yi di dimbale ñi nga xam ne dañuy laaj dañuy sàkku ci moom dimbal ba noppi nag taxawal julli di joxe asaka du dundal nag kóllëre gi nga xam ne moom la am ak jullit yi mu ne bu loolu lépp amee nag walaayka lësi na sadaxoo kon ñooñu dëggal nañ te itam sëriñ bi dafa wax ne tuuba li abdin muridin saadiqin kon kon kon kon muridin saadiqin ak walaayka lësi na sadaxoo ni ko alxuraan waxe kon loolu day daal di kon kon noonu rek lañ ko mën a waxe maanaam Euh, am murid saadix bala ko nit kee mën a doon dafa am ay jaar-jaar yu muy jaar ba noppi soog koy doon jaar-jaar yooyu nag mooy niñ ko waxee léegi mooy jikko yi nekk ci moom ah kon nag ñu xam ne ñi nga xam ne dañoo toppoon sëriñ bi euh, ci am ñu ko fi wax léegi ne sëriñ bi bi nga xamee ne mi ngi leen di seexal joxu leen téere buñ takk joxu leen sunguf joxu leen dara da leen a jox rek la nga xam ne moom la ko suñ boroom jox mu daal leen ciy tibbal defal leen lam leen cee defal ndax suñ Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne suñ Tuubaa day la muy def ci nit bañ di ko topp bu ko defoon ci garab it duñ fa jóg loolu la waxoon mu ne woon ca loolu itam julli ñaar rakka ku gën a jafe ci moom mu ne itam ca ba mu koy defee demagul ci géej gi kon kon kon kon loolu doy na ci ne cër bi suñ suñ tuba am ci boromam kenn amuko ña nga xam ne fekk ci wantam ñoñe tam do non do doonuñu doonuñu woon rek ay ay ci xaan manam ay nit ñu baax ñu bëggoon yalla ñu mënoon jaamu yalla ñu amono cër lañ ñu ndax sëriñ bi mom képp ku ñëwoon ci mom rek amna lu tax nga ñëw fa comme ni mu waxee ne xuloobu ahlullahi lii xat aqbalat bi jaahi maahin lii xalaam xat jalat maanaam wax ne xole ñi xole niti yàlla yi moom sëñ Tuubaa dañ ma ne xole niti yàlla yi dañ maa jublu xole niti yàlla yi kon kon dañu jàpp na képp ku ñëwoon ci sëriñ bi rek nañ xam ne ñëw ci sëriñ bi jébbalu ci moom am lu ñu nañ xam ne kooku nitu yàlla la woon kon nag ñooñee mel na ne seeni sët ñoo daje fii tey waaw kon nag bu sëriñ Mamoor yëkkatee bis bii jëmale ko ci mbooleem sët mbooleem sëti mbooleem seexi sëñ Tuubaa yi laa bëgg a wax rek te seeni sët teew fi ni tey kon loola damaa bëgg a wax ne matal nag kóllëre ga nga xam ne moom la maamam seqoon ak murid yépp loolu laa bëgg a wax maanaam loolu moom yéeneem la loolee itam nag ni ma ko waxee léegi rek ah ci taxawaayu sëriñ Mor Abdoulaye mii di kilifaam la ndax bu fekkoon ne dafa dugg ci leneen bu ko tàggoo sëñ Modou Abdoulaye kon sëñ Modou Abdoulaye du ko bàyyi ca bu gisoon sëñ Modou Abdoulaye di jëf leneen itam lu wuteeg lii kon ca loola lay nekk waaye lii la ko sëñ Modou yare lii lay roy yu mel nii rek lay roy ci moom sëñ Modou itam doon koo xam ne ah ñun ñii dañuy wax ne buñ nee baax na ñu ne ndax ay mbokkam a ko wax kon dañuy daal di jàpp na ñun ay mbokkam lañ ay xaritam lañ waaye lu baax dong nit lañ xam ci moom te nii bu fekkoon ne daaru minam gee yëgle woon na bis bi wóor na ma ne duñ xaj ci baas bi te dara mayu ko nag lu jikkoom ju rafet ak ak yitteem rek kon ko kon loolu la kon daal xam naa ne daa niñ bëggoon a yéene jiñ ci amoon ci kàddu yi mënewuñ ko noona moom dañ ko doon yëkkatil waaye mënewuñ ko sax nañ ko bëggee waaye daal dañ koy motlee suñ yéene rek waaw eh, xam ne ah, dañu ko digal rek ñu def ko waaye bu toon lool duñ jëkkat suñ kàddu waaye gannaaw digal nañu ko nag danañ ko yëkkati rek waaye nañ ko bëggee dëgg dëgg dëgg mënewuñ ko noonu kon daal ñu ngi sant mbooloo mi fi teew ñëpp ci turam di ah, am mbégte bu baax tam ci kilifa yi nga xam ne moom lañ ko dara jaale wax wax wax yi waxtaan yi nga xam ne wax nañ ko fi ndax tey dégg nañ ci sëriñ Mañaaw loo xam ne yàgg nañoo dégg taarixu sëñ Mañaaw waaye dégg nañ fi luñ luñ musta dégg kon day mel na loolu jaroon na ko sëriñ Mabey dégg nañ ci moom ay wax yoo xam ne yàgg nañoo dégg taarixam waaye mosuñu koo dégg sëñ àll yu mi mi nga xam ne itam mooy boroom kër gi itam dégg nañ ci bataay tàyyi waaye dégg nañ fi loo xam ne kon mosuñu ko dégg kon dafay mel ne bis bi bis bu mat bi bàyyi xel la waaw yaakaar naa sax ne rek danañ dana yaakaar naa ne tam dana àgg nag fuñ ko foogee wuti tëb waaw ndax bisum ñëpp la kon sëriñ Modou maa ngi jégglu kàddu yi ni waaw ñu ngi jégglu baax na niñ ko bëggee woon a waxee mënewuñ ko noona waaye dañu feeñal su yéene rek kon nag jërë ngeen jëf yàlla nañ ko fekkwaat ay ay at yu bare bare bari غدا مسيتنا بكتاب نبي بعدا إلا النبي رسول الله يا نبي رسول يا تسلم من سبى بك الخلدا يا منها يا إمام المرسلين معا عليك التسليم من